lanjang defe naa dégg nga mm-hmm. ñaar ñi bëri ñoo wax mm-hmm. yow nag yaakaar naa ñaari bëri ku leen xam du du la du la gën a xam ñooñu parce que bëri nga ak ñoom ñaar daan nga mm-hmm. Balla ñaar bëri nga ak Eumeu Sène euh, astafurla ak Tapha mu daan la sa mbër muy ama Sène waaw di nangu nag li pratiquant yi wax parce que bi grand salle di wax waxul en tant que comme ku far dafa analyser mm-hmm. mais ci biir analyse bi mu def mm-hmm. conseil na tafatin xaw mu ndax dégg na comme déet mm-hmm. maanaam dil paar uh-huh. waaw ñun ñi xam wax <laughs> dil paar da nga ko da nga ko rek côté na côté na mais xam nañ ni côté côté na mais aussi amaana mu ngay sàccaale non wax na ni Tapha a bëree. ah xaw ma nag Tapha mi <laughs> ak moom. Hmm. man xaw ma ne xaw ma. waaw mi ngi dégganteeg moom. waaw xaw ma déggantewut ak moom. ok mais lamb ji. par rapport ak ni ma dégg mu communiqué ko. Hmm. communiqué ko fii mu toog nii. moom Sarr waaw Tapha soxla na ko ci lamb hmm? waaw. côté communication conseil. ci côté hmm. fond wallaay lazim Sall dafa Sall fi mu toog nii waaw bu fekkee mbokki Tafatine a ngi seetaan émission bi waaw billaahi wallaahi Sall Sall Sall Sall conseil na Tafatine si li ma dégg man su hmm. fekkoon ëmma seen a toog fii mu wax yéen yi mu wax ñu war a bëre su ma paree dinaa ne ëmma kaay ma jël la hors antenne hmm. ndax dégg nga Sall bi waxee nangam bi mu waxee nangam bi mu waxee loo ci xalaat parce que dafa wax mais wax ji mu wax dafa conseillé Tafatine si biir wax ji wax na ni Tafa war a aborder làmb ji te bu ko wul noonu mën na see am difficulté waaw. Balla euh, Balla Gaye. Tafatino. Eumeu Sène. Modou Lo ñi nekk si làmb ñëpp. nangul nan ko li ko yàlla may. moom moom Balla. waaw xam nga yaa ngi naan ko soixante pour cent. mu moom bu amee vingt pour cent. vingt pour waaw waaw parce que Balla dafa am lu nekk ci moom. ku ko faralut sax. Mhm. da nga xam ne Balla gaynde la. dëgg la. buy am day am ci ngor mais buy ñàkk day ñàkk ci ngor mhm. moo tax man la pratiquant yi li ñu dama ko nangu mhm. doomu dàngu li mu wax kenn mënu ko kenn mënu puus mhm. maanaam li muy wax damay sentir nit sàlloo di ko dëggalee li muy wax dëgg la boo xoolee sàlloo ngi naan la dëgg la waay waaw dëgg la waay dëgg la waay jooju mooy sa parce que booy bi li da analysé loolu mooy dëgg looloo ab tafaatin mii waru am lu mu lu muy mocc si Balla Gaye te jour combat bi bu liir tafaatin xam ne am na lu tolloog maanaam Tafa nee cent pour cent la. bu Balla ñëwee liir Tafa xam ni fi mu ne nii Tafa quatre vingt la wala soixante dix pour cent. Hmm. Balla exploité loolu. Hmm. Hmm? waaw fi dima bi Tafa ne. waaw ak dynamique bi Balla ne. Tafa mënul warul may Balla jàpp. warul dute benn yoon ci ko wallaahi la si war a xel ñaar. dafa war a ñëw wan ko ni ko maa la gën a nekk fu baax. maa man la nit ñi gën a am yaakaar pour l' instant ci làmb ji parce que làmb ji nag non seulement Balla daanoon. Mhm. mais tey cent personnes boo leen jëloon. Mhm. di joxe fa bëri Tapha la ñuy jox fa bëri mhm. parce que xam nga lu tax. lu tax Balla moo daanoon Tapha. oui mais mu koy daan kañ la woon. te boo xoolee euh, Balla ñi ki tafaa ñi mujjee daan fan yi yëpp. moment yii. boobu ba léegi ñi mu daan ñëpp daan Balla. loolu am na. Bombardier. Eumeu Sène. Boy ñoom ñëpp danoo tër bal la mm-hmm. te bi tafaa ñëwee ñoom ñëpp da leen a daan mm-hmm. ak manière bu mu leen daanee nag daan rek parce que moom leen yëkkati loxoom mm-hmm. mais bu dee saay-saay yu bëree saay-saay yu jaxasoo bëree Balla moo ko ëpp tafaatin waxante dëgg yàqul xaritoo Balla moo gën a ñi ma action tafaa ci biir bëree non boo xoolee Balla comme ni li grand bi wax rek c'est-à-dire nekkul un tacticien mm. Balla boo xoolee combat bi maanaam day ñëw rek bëri parce que dafa dafa dafa surdoué maanaam technicien la loolu day am ci làmb mhm. dafay am mbër yoo xam ne dañuy dañuy dañuy technique maanaam dañuy surdéewu mhm. te loolu rek aussi doyul ci làmb mhm. boo xoolee mbër yi gën a jafee daan ci làmb ji dafay bokk ci ay Eumeu Sène ay Boy Niang parce que dañoo technique ba pare tactique te Balla tactique waaw te boo xoolee Balla waaw moom boo xoolee combat bi yëpp ah. Mhm. côté technique bi lay gën a. utiliser que tactique utiliser que tactique. Mhm. dégg naa benn combat am laa mos a gis Balla indi tactique mooy mooy bu Moustapha Gueye bi. Mhm. laa mos a gis Moustapha Gueye numéro un. waaw numéro un benn yoon boobu nga mos boo xoolee yeneen combat yi ngay gis yëpp des fois du nekk combat rayante te Balla dafay ñëw rayante. te du ci waa war a rayante. mais da a boo ba combat bu Boy boo gisee li ko ñàkkaloo yooyu yëpp si la fa am combat yoo xam ne bon. laajul ñëw pour wane na maa man mm-hmm. maa ëpp doole. Mm-hmm. waaw te boo xoolee bon. te combat bi comme li ma la wax rek. combat la daal boo xam ne Tapha amul benn instant boo xam ne war naa douter ci lu mu war a def. Mm-hmm. amul benn instant boo xam ne parce que loolu lu koy affaiblir la et luy may Balla Gaye doole la. lan da nga ànd ci loolu mu wax. waa non c'est-à-dire dama lay wax ñaari xam nga tey comme li nga wax léegi. waaw Eumeu Sène day wax ni. Balla Gaye sama combat moom day neex. Mm-hmm. man ko lu tax waaw man ko lu tax mun ma day bëre. Mm-hmm. Balla li tax du ma daan ma ne ko ah, mu ne ma saa yu ñu daje day bëre te man damaa bëgg mbër muy bëre. Mm-hmm. maanaam dam ye. dam am un am deux am Diop joxal Njaay nee na loolu da koo neex si bëre te nee na Balla day bëre loolu. ok comprendre la. suñu combat contre Tapha Tine. am na si ñoo xam ne dañ ko conseillé comme quoi que ne ko moytul Tapha moytu ko ci ban fan. si dóor beeg. moytul bu la dóoree nii bu la koree boo jëlee kuum boo jëlee lii boo jëlee laa boo jëlee lële xam nga nag man ak moom li léeg ñu waxtaan fu kenn nekkul mm-hmm. Mm-hmm. mun ma tafaatin ma ne ko ah, mun ma at bi suuflee ma ne ko ah, mun ma dama koy duma damaa waxoon lii waaw ma ne ko ah, mun ma nit ñi dóori ba dóori ba la ñuy xool ma ne ko munu ma yàlla xam na ni li ma ak li ma nar a préparé si combat bi ma ne ko mun ma bu ma dajee ak tafaatin nga nga nga wooy mbay jaar na si xam nga lan mooy euh, li may wax rek. seen combat contre Taphatine si si li ñuy wax rek ma yokk ko grand bi. waaw képp ku ko sut mën na laa duma. ku ko sut képp ku ko ah, sut ëmb na laa duma njool. Eh, eh, eh. xam nga moo tax ma ne Sall. Sall waaw Sall ku jar a ci la. Mhm. ah. Sall bu ma ko mënoon récupérer indi ko taay si nga dinaa ko indi taay si. personne la loxo boobu léegi a mucc bariwul de. Sall day liir combat te lim lay wax dara du ko dindi. Ah, ah. gis nga xam nga ëmb seen lan mooy